waaw ñi vingt une heures c'est vingt ñu delluwaat fële ca Mbour. <laughs> dëgg la de. bu ñu fàtte vingt une na ñëpp dem. <laughs> ku lu waaye di jënd na ko teel jënd rek. a moo xewoon Mbour ñu ñaan mbas mi mbas mbas mi jóge fi. ñu ñëpp ñu àndandoo xeex mbas mi. yàlla baax na ñëpp nañ àndandoo xeex mbas mi. te mbas mi bu ko kenn féetewoo politique ko wala nga defe ko neneen. mais man dama lu ma ci jaaxal. combat international la. tax ñuy tëj nit ñi guddi di leen tijji bëccëg. ah mais waa kër docteur ñoo ko wax waaw ma bëggoon naa ñu wax ñu lu tax. ah waa kër docteur daal la ko waa kër docteur. waaw docteur su la jëndalee bindalee garab gi ne la naanal bii doo ko laaj lu tax may naan bii. Ah, lu doo ko ni sama lii ak lii mooy métti. waaw soo ko nee la ba traitement nga dellu ah, waaw dama ni. waa kër docteur daal. voilà laaj lu tax ñuy tij nit ñi vingt et heures di leen tijji cinq heures. waaw lu tax fatuñu ñu bëccëg du ñu fat. mais ban loolu c'est une question waaw ah, loolu question nañ ko laaj ñu ngi ñoo ñu ne. man ah, daal bu dee virus bi noctambule ñu wax ñu ko. waaw dama ni Sénégal nañ bàyyi soo defee lii. ñu ne lu tax nga def lii nga def lee ñu ne lu tax nga def lee. mais ban kenn waxul kan moo def li wala. dama laajte laajte waaw man noonu laajte dama daal ñi nga xam ñoom lañ ŋànk ñoo ŋànk réew mi nee nañ 21 heures ñun ñëpp fatu na ñëpp fatu ku bëggut a fatu nag génn rek. yow daal lii moo yow daal lii man les ordres sont à exécuter sans hésitation ni murmure. l'officier qui responsable voilà Fatou kuy di ndugg da nga a ndugg ok nan mhm. ñun ay étudiante lañ dañu amoon benn euh, assemblée général boo xam ne moo ngi amoon ci université virtuelle bi nekk euh, croisement Saly léegi bañ fa amee assemblée générale léegi ñu demoon nduggi ji ci ngoon gi pour war a xëy togg foofu ay añ parce que man dama bokk ci jëwriñ yi samedi la ñu demoon nduggi ji ci ngoon gi ñëw am na benn kër mbàkke mbàkke bu jàkkaarloo ak euh, université bi kër googu noonu lépp lu ñuy togg wala lu ñuy def ci université bi kër meer bi sant Mbàkke foofu la ñuy toggee léegi bi ñu demee ndugg ji ci samedi bi ba ñëw ñëw foofu galaasi jën yi indi suñ bagage yi ñu war a togg indi lépp léegi daal ne maire bi ñoo ngi dem ba suba bu subaa dinañ xëy si ñëw maire bi mu ne waaw léegi fekk ne maire bi amoon na benn jànq bu mu waxaalee loon bi mu waxaalee ak jànq bi ba pare ci bi ñu fekkee wuñ muy waxaale ak jànq bi biñ xëy see dimanche dañoo ñëw fekk fa jànq bi mu nekk jànq bu bees ñu nekk di liggéey li ñuy liggéey di liggéey li ñuy liggéey xale góor yi di dugg di génn léegi jànq bi daal di ñëw daal di wax xale yu góor yi ne leen yéen yéen a ngi branché seen téléphone yi ci perron bi te dugg bi ak génn bi dafa bari te man maa yore caabi néegu maire bi léegi kaa leen ngeen branché foofu léegi xale góor yi bi ñëpp jël seen téléphone yi ko ci néegu maire bi mu ñëw daal ne maire bi maire mu ne ko ah mu ne ko yow de li nga def nii wóorul ndax xale yu góor yi ñu ngi solu kër gi ba kër gi fees dell di di di di di dugg di génn ba pare teew sa néeg bi tëjoo ko maire bi ne ko xale yi université bi de. lépp lu ñuy def ci université bi ci seen daayira bi fii lañ koy ñëw toggee si yàgg nañ di fi toggee te dara mosu fee manqué dara mosu fee waaye nag comme wax nga loolu ah garaawul léegi te jël buntu bi léegi mi daanu bees mi daal di jël buntu bi daal di koy tëj daal di yore caay fekk na mu wax xale yu góor yi université bi ne leen kaa leen ngeen jël seen téléphone ngeen branché ci néeg meer bi ndax man maa yore caabi néeg meer bi léegi xale yu góor yi ñëw branché mu daal di tëj néeg bi daal di yore caabeen daal di continuer nekk ci kër gi di liggéey liggéeyam di va et ne ci raxas beeg jàppalante xale yi lépp léegi boobu man sama sakos bi maa ngi ko wekkoon ci kaw fenêtre bi sama sakos bi amoon na fanweeri junni ak juróom amoon na samay këyit samay carte étudiant amoon na samay carte bancaire sama kayitu jëkkër amoon na ci parce que sama jëkkër dafa voyagé woon ba doon soog a ñëw léegi sama beneen xarit boo xam ne moo ngi tudd Aïda Mbène Sarr moom tamit sakosam amoon na vingt cinq mille xaalis amoon na pièce d'identité am carte bancaire am ay caabi yu muy liggéey ak ay bagage am yu sew léegi bi six heures jotee ba femme bi bëgg a euh, jël nag euh, saag yi pour dem la dugg ci néeg mère bi daf la ñëw sax ci saal bi ñëw fekk mère bi di waxtaan ak benn ganam mu ñëw nuyoo ak moom daan ne ko mère amal ma caabi ji mère bu jël caabi néegam bi jox ko mu daal di ñëw daal di tijji bi mu tijjee néeg mère bi dafa am fenêtre fenêtre bi ci lañ xale yi lonkoon. ci lañ lonkoon suñu ñaari sakos yi léegi ba ñu ba mu duggee si néeg bi mu ñëw jël euh, saagu Aïda Mbène saar bi daal di jël butéelu ji ci Aïda defoon daal di sànni ci biiroon lalu meer bi léegi daal di jël sakosu Mbène Sarr ak sama sakos man mbayam daal di koy dugal ci biir saagu Aïda Mbène bi daal di débranché téléphone xale yu góor yëpp dugal ci biir léegi bi mu déggee meer bi di dox di ñëw mu daal di jël nag ñaari téléphone daal di koy téye si loxoom meer bi daal ne ko waa ñaari téléphone yi nag mu ne ko lii de ñaari xale yu góor yi bokk si ino bi ñoom ñoo ko ko laaj pour ma jox leen ko dañuy woote lañ wax mais daana ko boo paree nga tëj après nga indi ma caabi ji mais moom dellu ci saal bi fi muy waxtaanee ak ganam bi moom mu daal di génn ndànk fekk na boobu jël na ñaari sakos yi sama sakos bi man Mbaye ak ay Ayda Mbène Sarr man sama sakos moo amoon fanweeri junni ak juróom ak téléphone ak euh, sama pièce d'identité ak sama carte bancaire ak samay bagages yu sew sewaan léegi sama xarit bi Ayda Mbène Sarr moom sacoche am amoon na vingt cinq mille xaalis carte bancaire am ak carte d'identité ak ay caabeem ak yeneen bagage am yu sew mu daal di koy jël daal di génn daal di dem bàyyiwuñ ko sax xel kanam ñu ñu geesu rek gisatuñu uh, suñu sacoche yi ñu laajte sacoche yi kan moo ko jël léegi benn femme bu nekkoon foofu mu ne ah laaj leen jànku jànk bii liggéey ci laaj leen ko maire bi ñu ñëw daal ne ko maire mu ne ah mu ko sa jànk bi fan la dëkk man na xaw ma fu janq bi dëkk ndax jànk bi tey jii la fi commencé lan la woon ñu ne ko dañoo jël suñu sakkos yi ak téléphone xale yu góor yi mu ne jël seen sakkos ñu ne waaw mu ne fu sakkos yi ko ñu ne ko moom la ñu wekkoon fii ci fenêtre bi ci suba ba tey sakkos yaa ngi wekki fii maire bi na ah ñu ne waaw mu ne ah man de joxuma turam joxuma mu dëkk ko jànq bi nan la tudd mu ne ah fii de maam jaar la fi déclaré ne moom la tudd suba sa mu am seen benn xarit boo xam ne jotoon na filmé léegi li mu jotoon na filmé nag femme bi da cee génnoon mooy photo yii ñu leen envoyé man damaa bëgg nag nge mu mu bu dégloo xalaas bii mu delloosi xaalis bi delloosi suñu sakos yi sinon du baax ci moom ndax ñun duñ ko bàyyi ak suñu sakos yi parce que suñu pièces yi yëpp a ci ak suñuy xaalis ñun xaalis bi sax garaawul mais suñu pièces yi ci nekk moom lañ bëgg a jot na delloosi suñu saak yi delloosi suñu pièces yi sinon dina am problème xalaas bi moo ngi noonu lii mbuur la xewe photo mi ñoo ngi nii moom mënuñu réer biir mbuur photo mi fépp dañ ko fa yóbbu dinañ ko nag xalaas nii waaw waaw mi ngi mi ngi noonu. ñoom dañ leen a dóor. dóor dóor dóor yu garaaw la leen dóor et puis li ci garaaw mooy ñoom dañ doon xam nga dañ yenn saa yi dañuy filmer nii ki benn dafa am benn vidéo xam ni hmm. ko nag. def lii pour que mu ñëw indi affaire yi ci sutura bala ñu koy bala ñu koy publier ci ci ci ci net bi. ñu ne ko yóbbu. waaw léegi ñoom lu ñu mën a amee confiance boobu nag. ah yéeme na de. ci a ñëw. waaw c'est que xam nga nag euh, ku lii wax la ca des de. comprendre naa yu mel noonu boo ca tolloo doo tal yu bari parce que yaa ngi ci organisation bi mm-hmm, mm-hmm. gis nga réew mi boo ci bëggee noppalu mm-hmm. bul wóolu kenn ñaw njort bul wóolu kenn kenn kenn moo tax ma lay indilaat maire bi ci waxi ndaw si di wax nee na daal boori ko ñoom abaa la dëkk yëmbal ak caaro yi maire bi ñëwoon fee ca bund kër baay Niass horaire ya fay déparé jëm Kaolack benn femme moo jóge Dubaay yoraale ay or xaalisam da koo def or indaale ko pour investir ci dëkk bi ñëw ba dakaar wara a dell nag Kaolack ba mu eggee foofu benn maire la fa dajeel maire bi xam nga rek trompé vigilance ak woo ko ci jëm jàpp julli euh, kuy tukki da ànd ak ko jàpp ak ñoom seen ci biir jàpp beeg yooyu noonu dugg ci toilette yi maire ni cas valise valisette bu ndaw bi bi femme bi indiwoon bi femme bi fekk fa valise ba or yi nekk fa la or moom dafa xamante ak maire bi wala xamul maire rek maire bi ni ko damay tukki damay dem Kaolack yaay ji xale bi yaayoo ko mère bi doomoo ko ba ñu yegg ci julleeg jàpp ñu ndaw si di jàpp nag bay raxas bopp bi ci la siggi gisul valise bi gisutul mère ba nee nañ mère bi nag boo <laughs> pour commencer pour commencer ah pour commencer nit sax du am lu ko metti nga naan ko ci lii mais pour commencer du ma yor yenn somme yu toll noonu di yéeg ay horaire du ma ko def du ko defal kenn nee na dafa yor ñeenti valise non mais du ko def nee dafa yor ñeenti valise pour investir ci réew mi yor conteneur. waaw ñeenti valise la yor. waaw na yor conteneur. waroon a dugg ci bus. ah non. man loolu laa du defal kenn. ah non mën nga fàtte sax da ngay tëdd. man naa fukki junni yu daje sama poos taxi laay jël. ah non fukki junni yu daje sama poos te man bu may bu fekkee damay xaar bay di jël taxi dafa fekk. sama ay membre famille wala sama équipe wala sama amitier yi amul ku ci yor oto. Mhm. ma soog a xalaat ni dinaa jël taxi mais am na yenn somme yoo xam ban da nga koy sécuriser. Ah nañ déglu déglu ko. man dama am benn affaire bu ma métti si sama biir xol. cinq jours mi ngi nii si tey lekkuma naanuma. bu ma tëddee guddi du ma nelaw ndax am lu ma lu ma métti ci sama xol loo xamante si ni benn mère moo ma ko def sama moroomu maam mm. wala muy sama moroomu yaay dama nekk immigré di liggéey sonn am sama contrat quatre ans daa am deux ans laa njëkk a signé contrat ah, mu jeex ma liggéeyaat yeneen deux ans quatre ans yéen mi quatre ans ma def ko Dubaï di liggéey yor sama xaalis ah, dénku ma ko ma sàmm dénku ma ko ma dem ma parce que bëgguma ko ma nax bëgguma ko lekk sama alal ma jël sama xaalis dem jënd ko or may ñibbisi ànd ak sama or ñëw bi ma dikkee ma def dakaar deux jours may dem Kaolack di seeti sama doom sama famille waa Kaolack lañ bi may dem Kaolack ma jël fekk maa ngi amee quatre valises valises yi dañoo bari mënuma jàll ak moom oto yu ndaw yi ma ne naa dem si oreelu Baye ñas bi nga xamante si nii mooy taxaw Castor trois biches moo fay taxaw ñuy dem Kaolack fa laa dem jënd sama ticket yéegal samay bagaas aj ko ci kaw ma jënd sama ticket ma fekk fa benn maire maire bi mel ne dafay dem naka te bi demul fenn lu sàcc la doon wut maire bi daan ne moom day dem Kaolack bi apprenti bi di aj sama bagage yi mu naan ma maire bi naa ma li nga fay dafa cher waxal ñu wàññil la ma foog ne maire bi daf ma amal yërmaane nag te maire bi boobu man lay sàcc ba oto bi des 10 minutes pour mu dem maire bi di dugg si jàkka bi di jàpp daan na ma nañ jàpp sax waaw ma ànd ak maire bi dugg si biir jàkka bi maire bi dugg si duus bi dénk ma saagam bi ma mère bi dénkee saagam nag te saag boobu moo ma dénk pour pour ma am si moom confiance moo tax mu dénk ma ko nag te dóorkat la mère bi daa dugg si toilette bi ma xaar ko mu saw ba pare mu génn bi mu génnee si toilette bi ma delloo ko saagam may ko mu taxaw mu jàpp ba pare bi mu jàppoo ba pare man tamit ma teg sama saag si pied bi nii ñu tiim saag bi tiim suñu bopp mu teg saaga ma teg sama saag mu ma may ko mu jàpp ba pare man tamit mère bi taxaw foofu di defar musóoram ak di muuruwaat man tamit fi ma sëgg di raxas sama tànk yi rek jàpp ba pare fi ma sëgg di raxas sama tànk ma siggi rek maire bi jël sama saag ak saagam dem yoonam ba nii ci ay ci ay seconde maire bi sàcc ma yóbbu sama or sama saag or bi maa ngi ko dugaloon ci biir saag bi ak sama beneen saag bu ndaw ma jël ko dugal ko ci saag amee bu mag bi ak sama trois montre ak samay verre ak samay passeport samay këyit lépp ci biir saak bi laa ko dugal parce que wóoluwuma pour dugal ko ci valise yi ma ne naa ko dugal ci saak amee bi maire bi daal si yoonam ba nii may waxee yow gisuma maire bi dégguma maire bi affaire bi nag métti na ma ba sa kanamu yàlla borom bu dee alal bi man maa ko liggéey ñàkk ko maire bi yal na ma yàlla suñu borom bi atte ak moom mu sàcc sama or bi noonu la demee ak moom or bi mi ngi nekk ñaari raado kuu ñaari raado kuu yu diis la waaw ñaari raado jaaro lépp complète waaw benn chaîne bi dañ koo létt benn beneen beneen chaîne bi raw la chaîne bi dañ koo létt beneen chaîne bi dañ koo raw ba pare mu ànd ak kër ak ay jaaro noppam ak sama trois montre ak samay passeport sama sama carte bancaire sama résidence Dubaï lépp maire bi yóbbu na ko nii ci ay seconde ay minute waaw képp koo xam ne nag gis nga maire bi nii muy jaay or maa ngi lay ñaan yàlla nga nga nga nga nga déclaré ko loolu moom ma fi indi chaque jour maa ngi déglu xalaas nag waaye liñ naan bis buñ la koy def cuuna ngay doon maire bi nag sama yërmande moo ma dugal ci moom ma foog ne kii jigéen la mag la du sàcc naka te yow maire bi sàcc international la waaw maire bi nag mi ngi dëkk entre yëmbal caaro yi fa la maire bi dëkk waaw mi ngi sol grand mbubb bu rouge grand mbubu bi ak kol gi mu koloo ñoo nuroo soir bi la 30 la téléphone yi ci ab taxi la ko bàyyi mais daal ab taximaan moo gis moo gis téléphone yi nee na ci taxeem mu ooma mi ci guddi na ma ñëwal nga jël sa ñëwal nga jël sa sa téléphone. si si oto lañ ko bàyyi fekk sama beneen numéro bi ma mujjee oote si la oote ma ne ko man samay téléphone ak saag bi ñoo àndoon téléphone yi maa ko jël ñaari téléphone ma dugal ko ci biir saag bi. mu ne ma man gisuma saag ay téléphone laa gis. téléphone yaa ngi ñëwal nga jël si ko ma ne ko minuit ci guddi may ñëw caaro yi jël si sama téléphone téye ko ba suba ñu tase police nga jox ma téléphone yi léegi nag mu téye ko. sa lendemain bu mu ñëw indi ko toq sama xarit mu oo ma téléphone ma ne ko ool sama xaritu jëkkër mu oo sama xaritu jëkkër ñu ànd dem gendarmerie mu déposé fa téléphone yi mu ne moom téléphone yi daal si otoom la ko gis waaw jeex na jeex na waaw man nag maa ngi nii toog waaw yóbbu na sama résidence yóbbu na samay sama carte bancaire lépp lendemain ba sa lendemain ba tamit mu dalaat këyit yi dem sànni ko caaro yi waaw téléphone yi téléphone yi taximaan bi ko for nee na caaroy la foree téléphone yi këyit yi ki ko for yëmbal la ko foye foree sama passeport ak sama sama sama test sama test covid loolu daal lañ gis ci këyit yi bi ñu laajtee paa bi ko for nee na uude bi toog foofu di ëw daal nee na benn xale bu góor moo wàcc ci car teg fa këyit yi duggaat ci car bi dem paa bi for kayit yi gis ci sama test Covid numéro téléphone bi ma ci bindoon mu oote ci numéro téléphone bi ne moom dafa for passeport ak test Covid ak billet avion ci laa ne ko man mii maa ko moom dañoo jël samay kayit ak sama sama saak lañ yóbbu mu jël téléphone yi ñu sànni ko fee kayit yi ñu sànni ko fële maa ngi nii nag toog. dégg nga Awa mi ngi noonu toog di tocc toccoo doon neex a lijjanti. ah naqari naa lijjanti yéeme na de. li ci des rek de mooy ñi nga xam ne ñoo ngi dem ci horaire yi. Mm-hmm. di tukki. Mm-hmm. nañu jàngee ci lii bu leen fa nit wan ak mbaax baa mu wan leen fa xame baa am wan leen fa disponibilité bi. Mm-hmm. même maag sa yaay bokkoon ko nekk. maa yar ba ngay gonek yooyu yépp bu leen ko sóoraal. wóorul comme booy dem aéroport yegg ba desul dara dul enregistré say bagages. sa rakk joo bokkal ndey ak bàyyi sax bu ñëwee ne la yóbbaaleel ma li bañ a. def de parce que amaan na sax moom la ca nekk du ko xam. Mhm. murus moo ko koy jox. mu ñëw mhm. jox la ko. Mhm. yooyu buñ ci dugg. or bi nag. or moom la ma la waxoon rek moom ndaw la xaalis say buy génn di say. jënd jëndkatu or yi nañ attention de. moom lan la la wax euh, moom li mu indi woon ci koy doon xool. suñ waaw loolu laajuma ko ko mais bari na ay. yu ñu defar yu mu. ku ñëwoon pour investir. voilà expliqué na nag ni or yi mel. investissement sax nees koy defee ci horaire. xam nga gars yi souvent est-ce que. Euh, moom laa lay wax de. xam nga gars yi seen dañuy def ko or maanaam seen la ñuy jël def ko or ñëwee fii jaay ko mën a mën a mën a mën a liggéey xay na mais daal mu ngi noonu de. li mu fi wax de ay raadu cour ay kii yu ñu létt yu diis lay wax xam naa muy wax yu diis. yu diis la waaw yow raadu cour yooyu yu jigéen ñi yow. abaa xam yu bari la si. xabaa am na or. waa Mbour. waaw nañu xam ne mbuur ci Thiès la bokk. mbuur waa Pire kon région région eh, biir Thiès lañ eh, wax ak Tivaouane biir Thiès lañ wax ak biir Dakar. ban eh, wax Thiès biir Thiès région de Thiès lañ wax Pire bokku ci de. région de wax Tivaouane non non kooku leen. wax